leneen loo xam ne ci beneen fànna la lu soxal askan wi euh, jamono yii ci mbiru internet bi loolu moom mën naa ko téyel sama bopp mhm. euh, dañ cee nemmeeku ne dafa am benn ceeb buy daw ci àdduna bi ñu koy wax ceebu plastique mhm. na ne lu mën a ku ko lekk da ngay faatu ceebu plastique di ndax am na sax wala amul waaw moom laa lay expliquer plastique ku ko lekk da ngay faatu mala boo ko joxee mbuusu plastique mu dee mhm. sa xar boo jëloon mbuusu plastique léegi jox ko mu dee li am lenn la Chine lañ koy defaree ñëw ba Italie dégg na ba Gambie non non dañuy wax rek euh, li am ñaari yëf la benn bi mooy am na vidéo bu ñu wane koo xam ne day jël ay mbuusu plastique di ko dugal ci benn machine muy génn nekk ay doom yi sew doom yooyu du ceeb doom la yoo xam ne sooy transporter Euh, yenn produit yi mel ni ki ay verre ak yooyu toj mm-hmm. soo ko sottee ci sa kees dugal ci verre bi sottiwaat ci mbir mi day tax du toj mm-hmm. yenn yi tamit booy déplacer booy recycler li nga xam ne mooy plastique da nga koy def noonu am na plastique yu bari yu ñuy utiliser di defar ay tuyau buy ñëw ci ay grain lay ñëwee ba grain yi nag boo ko filmé bu filmé bi leerul day nuru ceeb mais am na ca Thaïlande mm-hmm. ay boroom xam-xam yoo xam ne inventé nañ ceeb boo xam ne ñoo koy defaraat dañu jënd jël pëndaxu ceeb defaraat ko ceeb wala ñu jël pombiteer wala patas wala ay ñaam féculents yi dugal ko ci benn machine mu mu muul ko mu mu mu maanaam mu dëbb ko ba mu mokk ñu def ci ab diw goo xam ne moo koy boolewaat bu génnee nekk ay pepp yu mel ni pepp ceeb mais loolu lu ñuy lekk la bokkul ak liñ wax léegi nag boo jëlee xeetu produit yu mel ni comme noonu wala yu mel ni iñaam wala yooyu xam nga taux du xam nga li ñuy wax taux fufu yi nga xam ne moom la euh, suñ mbokk bambara yi di def ak yu mel noonu taux boobu soo ko jëlee nga defaree ko ceeb nga def ci ceeb soo ko toggee boo ko dànkee day dànku boo ko dooree ci suuf du tas ndax gom bi ci nekk dafa bari ceeb bu bari gom boo ko dànkee boo ko dooree ci suuf du tas ndax gomme bi moo koy jàpp mais ne plastique nga jël ba jox la benn exemple doo ko mën a yàq sax plastique boo ko tàngalee ba mu tàng pour nga mun ko yàq yow boo koy laal di lakk ndax tàngoor bi nga xam ne ci la plastique di nekkee ndox ku ko laal mu lakk la beneen bi mooy am na ñu ñu wane ci vidéo yi ci e, e, itali mu ne lekk na ko vingt jours nee na moom ba mu ba mu ko waxee ba dafa dem ca association consommateur ca Italie ñooñu ne ko. bu doon plastique la dee nga kon lii du plastique beneen bi mooy am na benn waay ju nekk itali joo xam ne moom dem na ba gis na société biy defar affaire yi gis na ne am na confirmation ne li ñuy wax dara amu ci parce que am na buy kiy wax neexut xel kiy dégg war naa neex xel mais ndax plastique boo ko defee sa gémmiñ boo ko yéeyee xam ne lii plastique la. waaw xam nga askan wi tamit ñëpp xalaat ñun mën nañoo comprendre am ñoo xam ne tamit bu ñu ko déggee seen xel dina dem. waaw mais nañ nañuy xalaat rek balaa ñëw dem ak seen i xol nañuy utiliser seen xel ndax loo xam ne plastique la nga jënd ko bés ko mu def nii sa loxo mu nooy nepp nii te lakku la loolu moom gisuma ko waaw mun pour pour nga ba pare nga lekk ko plusieurs jours te deewoo defu la dara loolu amut. mais nag bari na ci internet bi ay information yu ñuy génne yoo xam ne ñoo koy def dañ koy def pour saboter wala pour yàqal ay ay ay entreprise ndax boo wanee entreprise buy def recyclage u caoutchouc mu génnee ay grains yu sew nga leen gis nga chinois yi li ñu def bari na lu ñuy accuser chinois yi te chinois yi nag lu baax ci àddina bi ñoo ko defar lu bon nit dañ koy defar mais xarala yi gën a avancé ci àddina bi sin lañ koy monté fa lañ koy defaree xarala yi nga xam ne itam dafa bari ay politique maanaam ay nu ma ko mën a waxee euh, ay mauvaise qualité dañ koy defari tamit parce que ñoom booy ñëwee dañ naan la ban nga bëggu qualité bu baax wala qualité bu exactement mais bu fekkee yow sénégalais bi yaa dem siin nga tànn fa la fa gën a bon nga jënd ko indi ko sa réew mais dañ naan siin li ñu defar baaxul waaye siin li gën a baax ci àddina bi dañ koy defar dañuy defar itam li gën a yées kon loolu am na genre politique boo xam ne gaa yaa ngi koy def di leen jéem a attaqué di leen jéem wax naan dañuy def ay ceeb yu kii mais ceebu plastique moom loolu amul boo koy lekk di de